ñoo àndoon nekk caravane bi c'est bon comme ni ma ko waxee boobaak léegi ñun ak ñoom Cheikh Bara ñi ñoo ànd nekk ci liggéey bi di campagne nekk ci caravane bi dem di topp ci caravane fu ñu dem macha allah yokkal baat bi tuuti soxna si fu ñu dem macha allah ñëpp génn dóor metti nag da may comprendre fi ne may wax sama wet yi pay metti waaw noonu la demee daal bi ñu demee ñu nekk suñ liggéey nekk suñu yoon caravane di caravane ba ñëw ak si dëkk bi ñu tudd Daaru Musi bi ñu ñëwee Daaru Musi man ci laa déggee teg sama yaay dafa am xaritam mi nga amee tan soxna si la ñu koy woowee soxna Sall waaw sama na ma comme yéen a ngi foofu bu ma ne ko ñu ngi nii daaru agsi naan mu ne comme agsi ngeen soxna jëlaatal la suite ci laa laajte fan la dëkk ñu ne ma koñu pharmacie bi bi ma ñëwee ba ci koñu pharmacie bi ma laajte ay xale yu góor laa taxaw ma ne leen xam ngeen ku ñuy wax tan soxna Sall ma waa kër ga yàlla man dama dox deux mètres rek jékki-jékki benn xale bu góor ñëw rek dóoree ma ginnaaw keneen ñëw xëcc sama brassard yi ma takkoon ñii jàpp ma di ma dóor mbooloo mu bëri ñëw mbooloo mu takku ñu jàpp ma kii di dóor fii kii di dóor fii ci noonu moom jaañ fara ci la ñëw ànd ak ay garde corps bi ñëwee daal di ma laaj na ma yow soxna si xam nga li nga def déli la yow waroo takk brassard ah yor sa écharpe dugg ci koñ bi te eh, xanaa xamoo ni fii sama secteur la man ko kon politique loolu yëpp am na ci man sama tànta laay seet mu ne ma kuy sa tànta man ne ko soxna soxna Sall ko waa mu ne xam ko bu ma la bàyyee ñii dina la rey ma ne ko waa parce que commencé na ma dóor te man xaw xew noonu mu wane ginnaaw xale yi tourné waat ñëw di ma dóor bi may dóor muy wane ginnaaw man ko yow jàng fara xam naa la bu baax tey xam nga ne xam naa la parce xam nga kan soxna Sall ci la tourné bi mu tourné eh, garde corps am seen affaire yooyu ñuy massacré di dàq ful bi ba ful bi dem après moom ci la ñu nañ jël seen oto oto bi ñu moom ci caravane bi ne nañ ko jël dugal ma ci yóbbu ma man suñu convoi fan la nekk ma wax leen nii ci rond point bi mu ne nan ma yóbbu mais mu muy wax ak xale góor ne boo leen yóbbu. boo leen demee ba ci yoon bi da ngeen di gaare oto bi jël beneen oto bu amul taf bi comme ça ngeen mun ko ci yóbbu pour ngeen bañ a am benn problème ci yoon bi léegi lu ma waxee loolu man ko problème am na ba pare parce que def ngeen ma li ngeen may def dóor ngeen ma gaañ ngeen ma lu métti lu ne nitital bu ne def ngeen ma ko mu ne ma soxna si man ko am ah, ma yow yaa ngi tooñ parce que yow yaa ñëw suñu koñ naan da ngay seet nit takk say barasa man ko kon aw ma droit ñëw man damay laajte ba xam aw ma ñëw ci koñ bi seet te ki may seet yow xam nga ko waaw nii daal la affaire bi demee garde corps bi jël ma indi ma ba suñu côté bi ñu ñëwee ma fan mooy ko bi ñu nii ñoom tamit ñu summi parce que bëgguñu sol seen mbaxane yi di bi ma ko solal sa mbaxane sol leen seen t-shirt ngeen dugg ñun yemuñoo àdduna bi neex mu bañ yëkkati loxo di ko dugg nit yéen li ngeen ñuy ji ci yéen la nekk te wala ngeen ko tay te loolu maam Paate mu ndaw mun ko seete ndax bi mu ñëwee ma taxaw ak maam Paate ne leen gis nga ñii ñoo indi garde corps Diagne Fada yi ñoom ñoo ma jàpp gën ma dóor ful bi jàpp ma li ma dóor ñoom tamit ñu ànd ci dóor na ma ba seen xol seet bu dooga tourné Diagne Fada ne yóbbu leen ko waaw hôpital nag laa jógee nii dooga ñëw te laay delluwaat parce que instant li ma yëg sama yaram bëri na te mënu ma ko wax maa ngi tudd tey jéggalu bu kàddu yi jubee ngeen xam ne rek doomu aadama fi doon wax bu tënkee tamit ngeen xam ne doom kàddu doomu aadama maa ngi leen nuyu yéen ñëpp waaw ñun moom damaa mënta wax na ci mbooloo mais damay wax li nga xam ne rek moom lañu ñu dund fële na leen parce que ci daaru parce que depuis lors ñun ñoo ngi campagne kenn dégguñu ci leen parce que buñ bawee suñu kër ba suñu lépp jàmm moo ñu tax a jóg ndax ñun ay jigéen amuñu doole bu ñu mën a xeex ak ay góor surtout yu toll noonu mais ñun ci caravane bi ñun ñoo ngi nekk ci kaw piquet bi nga xam ne presse bi fa lañ nekkoon parce que boo leen déggee vidéo bi ñu nekk ci presse bi ñoo ngi naan la c'est la presse c'est mais teewul ñoom ñu ngi yor seeni xeer man xeer bi njëkk rek avant xeer bi rek bal bi njëkk tiire moom lañ tiire ci kaw beneen bi moom lañ bëggoon a tiire ci pono yi parce que ñun ñoo. ottoman sëñ euh, nu mu tudd sëñ Baara ñu ñoo nekk ci kanamam buñ baaree suñu oto rek dañuy am accès ci sa oto Cheikh Baara moo tax ñu jël bal boobu doon ko njëkk a tiré ci pick bi ñu ñëpp ay témoignage ñun ñëpp ñooy woon ci lii ñun ba ful di jaxasoo man waay di ma doon sànni benn waay bi ñetti xeer yëpp benn waay moo ma sànni bi njëkk bi moom la ma sànni fii ci lii sala sama kat bi wal bi deuxième bi moom la ma def ci sama jëbi nii troisième mooy dagg-dagg bi sama loxo muy ñetti xeer yëpp ci man la ko sànni te benn nit moo ko def parce que ñun ci début ba bañ duggee daaru ci la ñu peut-être ñii jiitu nañ mais ñu ñu nekkoon ci ginnaaw balaa ñoo yëg ci pick-up bi fala seen oto ba njëkk nekkee ñu doon caravane ba ñu doon ñeenti oto bañ demee ba xam ne ñoom mënuñu jàll ci lañ ñu wër na ne bañ ñu wëraatee na xam naa ci lañ def daal di jàpp kii moo ne ma maa leen naan oto waa kii APR yi ñu ngi ci caravane bi mais wër nañ mais yaakaaruñu woon que ni loolu dina fi parce que ñu jàmm yaakaar naa campagne électorale yooyu yëpp xaju fa yor nga sa candidat ñu yor suñu candidat yooyu yëpp mënoon na cee ñàkk mais gaañ yi ñu ñu gaañ yàlla xam na ne duñ ko bàyyee noonu duñ ko bàyyee noonu mu ko mu ko mu ko ay yaram lay joxam te ay météo merci beaucoup. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di woowu ñëpp nekk sa tool sa sant. ñun moom xam naa ne traumatisé bi mooy ñu bàyyiwu ba léegi parce que ñun ñëpp ci pick-up comme ni nga ko waxee ci pick-up bu journaliste yeeg influenceurs yi lañ nekkoon te boobu ba léegi ñun comprendre bi dañoo jékki-jékki rek gis xeer yi jàll ci kaw di jàll di jàll di jàll man maa moom rajo bi nga xam ne mooy tànk bi donc man sama genou bi lañ xaw a laal te rajo nañ ko preuve yaa ngi nii affaire bi daal metti na torop torop torop torop ndax xeer yi bari na mm-hmm. comprendre oo fital yi ñun daal comprendre ñu dara dara dara dara poul bi daal dañoo jekki-jekki rek oto yi dagg suñu kii suñu pick-up bi parce que moo nekkoon ci kanam moo doon filmé ñun ñëpp fa lañ nekkoon bi mu ko daggee bloqué oto Cheikh Bara jiitu oto sëñ Mara Niass topp ci ak seen i pick-up bu yeneen chauffeurs yi chauffeurs yi donc dalay leer ni lii nii ñoom dañ ko programme woon ndax ñun ba ñuy dugg daal bis bi guddi woon na guddi goo xam ne xalaatuñu woon leen sax en plus ambiance des jeunes yi ñu génnee li nga xam ne metti na leen ci dëkk bi ñu bëgg mu changé donc bàyyiwuñu woon xel loolu yëpp moo tax affaire yi daf ñoo bett te ñun ñi ci ëppoon ci oto pick bi ay jigéen lañ donc xam naa ni daal lii moom moom faaw ñu faaw ñu wut ci solution mooy que ni ñun ñu bàyyi parce que ñun ay jigéen lañ ñu ba Dakar ñëw foofu pour def suñu liggéey kese nekk ay patriote nag gëm ko mu nekk ci ñun boobu ba tey ñu ci déglu lu ne di ci dégg lu ne ñu jàpp teewu bàyyi donc lu léegi nii la ñuy bàyyi te bu ñuy jógee dañuy dem yeggale suñu campagne dara duñu ko yàqal. incha allah.